tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub émission toj yax bi la ñu wax kon tojal yax bi nga may loo xamante ne fu mu toll nii xamoo ko sax parce que bu leeree rek xoolal moo ngi woon ci dëj bi kay dam da lay rey jaale la Nabou Leye naa leen woon ay image li mu def ba pare ñëwaat ci dëj bi dëmm da lay rey jaale la loolu psychopathe la dof la. yoon déggoo ma ni xoolal bu am yoon koy teg ci table bi ku ci nekk nan kan la ca lay dàqee da nga koy teg ci table bi kii ki na waa as mais samay doom maa leen maa leen yar ñoom man maa leen di dimbali. maa leen di dimbali quoi man la ñuy ñëw ma leen di yóbbu ci plateau yu baax yi di leen fay loo xamante ne da yóbbu Europe sax indi leen di leen ko fay samay doom ñooñu kenn mu ma tàkk lañ Balla Ndiaye yaa ma tuddee doom nday Xadi Nabou Leye May Gadaga Maguette Seck Xadi Bambara ñoom samay doom lañ nit mënu mënu maa tàkkal lañ ñoom ci àdduna ñoom bi nit day xam boppam waaye mu jaral leen ngeen di dem si ay sëriñ pour yàq ay gor. yàq ay nit dama ne nañu jël sa téléphone bi xool ko ña ak ñan nga doon waxal. léegi dama bëgg yéen ñiy wax li ma leen wax dëmm rey la jaale la xool leen Nabou Leye li mu def xool leen xool leen xool leen li mu def nañ xool image bi yéen ñëpp dinaa leen jël ñi partagé ah. xool leen fi image mbokk yi vidéo Nabou bii. xool leen moom laa bëgg ngeen xool ko bu baax te njàngat vidéo parce que téye na waali ni ko war a téye ak nangam ñoom dèjà xamuñu woon waali ci lu mu nekk. mais encore benn affaire am na magam bu góor waali xamoon na waali ci lu mu nekk au fond. gars wax ji du neex ma leen wax du samay wax man waxaguma man waxuma ba tey dabalaa góor jigéen la gars yi ñooy wax man du samay wax ah xaw ma Papa Ndiaye Thiou moo ko yónni xaw ma kan moo ko yónni mais nañ ko déglu. neexoon na ko dem leen ngeen tàllal ko micro laaj ko ba xam neexoon na ko wala déet. nga nekk Kolda moom inconnu lañ xamuñu woon li géej gi di riir ci Dakar mais dama ni dem leen yéen yéen ñi nga xamante ni yéen site internet yi lu ñor lu ñor ngeen tàllal micro dem leen ngeen tàllal ma ko waale bi nga xamante ni moo ko fii dem leen ngeen tàllal ko micro ni ko ba xam bi nga jëkkee découvrir ni waale ñu ngi nekk ak Aziz ba xam neexoon na la ou wala dëgg la neexoon na la wala neexu la dem leen ngeen laaj ko ko su dee neexoon na ko ngeen wax dina leen ko wax su nekkee ne neexu ko woon ngeen ni ko lan moo war waraloon neexu la ay jullit lañ su nit génnee àdduna duñu wax ci moom lu ñaaw mais dañuy wax loo xamante ni pour nit ñi leeral ñu xam lan moom mooy lan mooy cause ray bi li tax coow li am ba ray di ci am garab yi dem fii laa taxaw ma ni leen yéen ñiy jéem a rafet rafetloog su ma benn sœur moo fi nekk ma ne ko yéen ñiy rafet rafetloog nangam ak nangam nawulee kenn mënu koo te dem kaso kenn mënu koo tee dem kaso parce que dama ni la ci siis yi même ci siis yi tey siis yooyu ginnaaw raay lañ dëkk am na ci coo seppee kenn ki nga xam te dama ne la kooku waa këram ñi ngi may dégg xam nañ ne sàcc la parce que seen waa kër day sàcc day sàcc koñ ba day sàcc fépp ñoom xam nañ kooku sàcc la léegi ci siis yooyu seppiwaat ci deux wala seppiwaat ci trois su ma neexoon sax ni quatre yoo xamante ni amuñu lee ak nabulay nañu dem xóotal enquête bi xool ba xam ñooñu fii ak 6 mois wala fii ak 2 mois wala fii ak 1 mois wala fii ak nangam daan nañu waxanteeg Nabou Leye wala séqante nañu ak moom lan la ñu séqanteeg moom lan moo tax ñu séqanteeg moom ba ci distance avant deewu Aziz ak après deewu Aziz ñuy déggante te daaw ñu déggante daaw ñu séqante kaf wala ree loolu question loolu moom mooy wax ji dama ni leen. ma bamtuwaat ko dama ni ci siis yi nga xamante ni ci seet yi nga xamante ni dama ni la kenn ki sàcc la waa këram xam nañ ko ni sàcc la dama ni soo ci seetee trois su ma neexee sax ni quatre parce que kenn ki wóoru moo tax mais jàpp naa ni ñi trois yi mel noonu la ñu mel su ma neexee sax ni quatre ñooñu daaw ñu séq ak Nabou Leye salaamaaleykum. ngeen défendre ma ndeyu kenn man di yéen ak may capté ku nekk na xalaat lu la neex man lu ma wóor ndax góor jigéen la war du góor jigéen la moo ma ci wóor. défendre ma kenn man man li ma xam rek laay teg xaar enquête bi génn. li ma wax rek li li ma li ma li ma li ma suma du ay nit du nit du ay ay waa këram du ay fansam du keneen li tax mënuma wax ci moom loolu diine moomu ko tënk moo tax mënuma wax ci moom mais su ma diine tënkul woon damay wax ci Aziz. wax la wax la ay fréquentation wax la ñu muy fréquenté ak ñu mu xam mais loolu diine moomu ko tënk du ragal. ki këram du yërëm waa këram du kii metti mais dama ni la suñu fekkee ni su fekkee ni bëgg bi leer euh, PA jarul ngeen woote yow mi woote yaa ngi may woo juge jël ma dugg naa sa compte partagé woo nga demande man ñi may jël ñi fi jiitu ak ñi partage su may jël ñooñ laa jël ku partagé wul nga la demal soxlawu ma la fi parce que mënoo ñëw juge tricher juge juge non seulement abonné woo ba soo suivre partagé woo j'ai pas besoin des des ingrats des taupes, des infiltrés, des malfaiteurs, des malnés au sein de mon entourage. nit ku dëggu laay wër ku dëgguwul bu ma ne man ngay topp toppaloo ma ay duul ngay topp pour muy clair yéen ñëpp dinaa leen jël may leen ma tuuti. Aziz góor jigéen laa du góor jigéen du sama mbir man. Kanta man ñëw ma taxaw naan góor jigéen la ñëw ma taxaw naan du góor jigéen lu ma ci leer. enquête bi lu mu génn rek loolu laay ànd bu jaree lool la dañ koy wax bu dee lool duñ ko wax parce que il faut ñu xam le mobile du crime mooy lu waral dee bi. moo faj ñëw di ko raay dama koy bomb ba mu set mais nag moom parce que diine moomu ci tënk dañuy nit ki su génnee àdduna soo mënul wax ci moom lu rafet noppil kon damay nopp ci côté Aziz. foofu rek waaw kon moo wax leen kan mooy Aziz ak Aziz ñan lay fréquenté ak Aziz ñan ñooy xaritam ngeen dem gëstu ji dem tàllal li micro. ñi muy fréquenté ñenn ci fecckat ñan la ci jubóol ak ñan la ci jubóolul ñan ñoo ko ci fréquenté ak ñan ñoo ko ci dul fréquenté yan góor lay àndal ak ñan góor lu dul àndal ngeen dem tàllal ñooñu micro xool ñooñu ñooy ñan mais nag. mënoon ñu avant moo gaañ. xam nga avant moo gaañ mënoon mënoon nañu lii la waaye du ñu bàyyi ba mu gaañ rek ñu génn ay baat ñaar dugg des loolu loolu waaw mais loolu waaw mais ma yegg rek merci Macky loolu loolu diine diine moo ko tënk léegi ma ñëw ci Naboulaye ma xam nga wax naa leen ko démb dinaa ko répété waat yéen ñuy wax waxi affaire la soxor Nabou Leye dafa jalousie dafa soxor affaire bi xaalis nee naa affaire bi le transfert d' bi ñuy wax du base bi. may ma tuuti parce que version yi ñoo bëri kenn du ñii buñ ne góor jigéen la ñii du góor jigéen kii moom li muy wax mooy góor jigéen la mais buggul wax parce que diine moo ko tànk moom foofu lay waxee foofu lay waxee moom ñeneen ñi nee nañ du moom mais loolu man waxuma si. gaal yi góom kenn du ko faj ñëw di ko raay da koy bomb ba set mais nag wax ci moom parce que diine moomu ci tënk dañuy nit ci moom lu rafet noppil. Ah. kon damay kon ma wax leen kan mooy Aziz ak. Aziz journaliste bi nee nee na ko noppil foofu bul wax loolu nee na diine ko tënk droit am man waxuma ba tey de waxuma ba tey damay teg. fréquenté ak Aziz ñan ñooy xaritam ngeen dem gëstu ji dem tàllal li micro ñi muy fréquenté ñenn ci feeckat yi ñan la ci jubóol ak ñan la ci jubóolul ñan ñoo ko ci fréquenté ak ñan ñoo ko ci dul fréquenté yan góor lay àndal ak ñan góor la dul àndal ngeen dem tàllal ñooñu micro xool ñooñu ñooy ñan mais nag. loolu mënoon ñu taw avant moo gaañ. xam nga avant moo gaañ mënoon nañu ne lii la waaye du ñu bàyyi ba mu gaañ sax ñu génn ay baatu ñaar def si kaw loolu. loolu waaw ma loolu waaw may ma ma yeggale merci Macky loolu loolu diine diine moo ko tënk. léegi ma ñëw ci Naboulaye ma ñëw ci Naboulaye xam nga wax naa leen ko démb dinaa ko répété waat yéen ñuy wax waxi affaire de soxor Naboulaye dafa jalousie dafa soxor affaire bi xaalis nee naa affaire bi le transfert d' argent bi ñuy wax du base bi. parce que nee naa leen le financé problème mu financement bi ñuy wax problème mu xaalis moment bii condition yi nagu lay nekk Aziz nekk ko financièrement na bu moo ko ci moo ko ci sut li may wax waa kër Aziz xam nañ ko su fekkee ni poste bu dis waxuma poos bu diis nga ne mais su fekkee ni poos bu diis ak tane Nabou Leye moo ci sut Aziz ci ci jamono jii may wax ak yow moo ko gën a moo ko gën a nekk ci ay conditions yu tranquille te li may wax soo leen ko wéy ay ay mbokk Aziz mi ngi fi mais dem leen ngeen laaj leen nit ku génnee àdduna dem leen ngeen laaj leen xam nga dañuy wax affaire problème transfert dem leen ngeen laaj leen ba xam Aziz moom kontam bàyyi na fi dara wala bàyyi na fi million. wala bàyyi na fi huit cent mille wala un million. xam nga bi tool yi jógee ñu ngi wax ay transfert d' argent Wave kii retiré na nangam nangam ak yooyu ki ñu wax ni Aziz dañ ko transféré cinq mille francs mu jóge ci compte am compte Aziz dem ci moom nee naa la kooku dafa bokk si ñaar yi nga xamante ni xam nañ Nabou Leye xam nañ Aziz mais dafa am trois yoo xamante ni xamuñu Nabou Leye du bokk sekkuñu bonjour sekkuñu bonsoir ñooñu lan moo tax Nabou Leye di loolu laa leen wax. ñu envoyé Aziz kooku moom ak Aziz xamante nañ moom ak Nabou Leye xamante nañ dégg naa sama monsieur le mu wax benn wax comme sax day junj moom xam na lépp muy ay dara <laughs> gis nag dégg naa benn mu wax benn wax nee bi Nabou Leye bi Nabou Leye wàccee ki nga xamante ni mooy Aziz euh, Ikotaf dafa am ku mu accompagner ànd ak moom dem seen kër àndal dafa bokk si ñaar yi nga xamante ni dañoo xam Nabou Leye xam Aziz waaye léegi te kooku dëkkul i su dee la ko wàcce xaw ma ci ban point la ko dëkk wàcce ba mu a fekkanteeg foofu aji te su dee fekkee da ngay déposé xëy na da ñëw ba fu am accessible foo xamante ne mën na fa am taxe pour dem këram nga ko fa mais ki nga xamante ne Aziz moom la àndal foofu li Ahmed Aïdara wax suuf si Ahmed Aïdara bi mu wax ànd ak moom dem seen kër mais kooku dëkkul ICOTAF léegi lan moo tax na wulay wàcce ko fa ba pare ah, moom ak Aziz duggandoo ci taxe. Itani sama waay camiñal jaara busuk wala man se bi jaara